aousubillah Bismillah ina wala yàlla jërëjëf Serigne Touba jaaraama maam Cheikh Ibrahim Fall way sant nañu yàlla bu baax julli ci yont bi di sant Serigne Touba Xaadim Rasul mbokki jullit yi mbokki taalib mu mel ni seen émission bi ñu don dik dikk doon leen ko wax muy émission jëf jël ñëw na tey fii ci Géejawaay Géejawaay nag bu ñu fi ñëwee boo ko tuddee di tudd sikarkat balaa ngaa wax kenn di ngeen wax bi nga ni fi njëkk yëngal li ñuy wax wàllu xiin muy Lamp Diop gën koo xam ci Kara mi ngi ni toog suñu wet moom lañ bëgg defal émission tey ñu bëgg nag waxtaan ak làmp tey dina leen wax fi jaar li mu def bëgg-bëggam lépp lu mu yéene ay tolluwaayam li mu ci am yëpp dinañ ko laaj tey képp koo xam ne soppeem nga na ñu teew li topp ñu làmp mi ngi ni suñu wet làmp ñoo ngi lay nuyu di la siyaare di la jox sa wàccuwaay dañoo wax ne nag làmp saxaar bu jubee gaar dafay corne balaa moo wax dara dañoo bëgg làmp nga am noo ñu defal ndax saxaar bu jubee gaar day corne La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Bamba la ilaha illallah ifal Muhammad Rasulullah yeah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah yeah. Bamba Bambalaila ilalaifal Muhammad Rasulullah yeah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah yeah. Bamba la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah jërëjëf jërëjëf waaw loolu la ñu wax ni saxaar bu jógee gaar dafay korne kon moom corné na làmp buñ ñu bëggoon a xam tey kan mooy làmp Jóob moom lañ bëgg a xam kan mooy làmp Jóob ak làmp Jóob fan la jaar ci daara bu dee jaar na ci daaray tarbi wala daaray njàngaan kan mooy làmp Jóob azibillah bisimillah inna wali yàlla jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul Masamba ñu ngi lay nuyu di la siyaar di siyaare kull kuy seetaan émission jëf jël di siyaare waa télé bi di siyaar waa senegaal yëpp rawatina géejawaay gi ma dëkk Masamba làmp moom yaakaar naa buñ ko dee wax fi la fanaan làmp mooy ki nga xam ne mooy yëngal senegaal toogaan nii tey di wax ak yow kookoy làmp est-ce que waaw kon loolu leer na làmp bëggoon nañoo xam làmp bi mu fan la tàmbalee ci sikar fan la tàmbalee ci sikar waaw sikar si moom maa ngi ko tàmbalee ci daanaka ba ma juddoo laa tàmbalee sikar ndax sunu kër daa nekk kër goo xam ne këru murit la maanaam damaa yaru ci murit daal mm-hmm. sunu kër sama yaay day sikar samay mag dañuy sikar samay rakk sax dañuy sikar xëy na dama cee nekk ku gën a siiw rek. Uh-huh. waaye dañuy sikar. ba ma jógee sunu kër nag. Uh-huh. Cheikh Modou Kara Mbacké Noreyni nii yar ma. Uh-huh. defaat ci man sikar. yaa ngi dégg. sikoori laa yaroo. ci ëttum Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni nii. benn jour mos naa tëdd génte. sëñ bi ma géntee sëñ bi di sikar. ci biir gént gi sëñ bi ñëw ci biir sikar si ma jox ko micro bi bi ma ko joxee micro bi ci laa yeewu ci ay nelaw waaye ba ma xëyee damaa dem siyaare ko ni ko mbàkke démb de damaa gént di sikar mu ne ma loolu sa la dee ko def ba ma sëñ bi waxee loolu nag ba tey jii moom mm-hmm. daanaka wàcc ma raay bi daal maa ngi ci sikarte bu baax a baax a baax waaw di fas yéene nag sikor ko feneen ak feneen fu dul fii te ñu ngi koy ñaan sëñ Touba. Agasa Lamp loolu leer na loolu leer na mais tamit bëggoon na ñoo xam tamit euh, sa diggante ak Cheikh Modou Kara sa diggante ak Daara ja bi ngay wax Sikori Sikori ñaata at nga fa def Lamp ñaata at la def Sikori digganteem ak sëriñ bi ak njabootu sëriñ bi tamit. waaw xam nga Sikori yàgg naa fa yàgguma fa. Mm. daanaka defuma sax ay juróomi at. Mm. ay ñeenti at laa fa def jàpp ñetti at. Mm-hmm. ndax sunu kër ca Touba. Uh-huh. daaru Marnaan laa dëkk. Uh-huh. daaru Marnaan mooy kër maam Cerno Birahim daamal daaru Muxti. boo ñëwee kër sëñ Modou Kara boo xoolee sa ginnaaw. balaa uh-huh. dëkk. nekkoon Touba doon liggéey menuisier. bi may liggéey menuisier. suma ma mosaan ci kër sëñ bi laay añee walaay reeree. sama tëni sax balaa ka daan summi sangu toog ci kër gi. sëñ bi da daan ñëw. toog ba yàgg mu woote meew bu wootee meew Baay Faal bi day toog fee di meew sëñ bi di sikar ñu koy awu daanaka lu ma xam ci sikar lu bëree bëri ci moom laa xamee ndax moo ñu ci yar daal nàmpal ñu ci ba ma demee di liggéey di liggéey ba yàgg ci laa jël liggéey bi teg ko fële ànd ak Baay Faal yi dem sikóor yi ba ma demee sikóor yi lu ma saan xew biir daaru damay génn di sikar daara ji guddi ajuma weeg yëpp ñoo ko daan géré ba mhm. tey jii ci laa ñëw ndakaaru na gën a fésal sikar soosu noonu te loolu loolu quatre quinze la ci laa génn sikoor yi ñëw géejawaay mhm. spécial si quartier bu baax a baax ba tey Sénégal yëpp di dégg Lamp Diop. ak sa ndeysaan loolu leer na nañ ndeysaan mbokk yi ñu ngi leen fàttali ba tey ni ñoo ngi seen émission jëf jël ànd koog waa Top Model Events kon foofu lañ tolloog Lamp Diop Lamp am na loo xam ne bëggoon nañ ko xamaat Lamp ban année. la làmp njëkk def ci xelam ni moom war na mën a génne kasetu sikaru xiin ban année ak lamp nan la duggee ci kaset bi ak lan la lan moo lan la ko kaset boobu apporter ndax ñun suivre nañ ko fekk nu fi gis nañ ne kaset boobu dafa wër àdduna bi monte anje la wër ba xamna après sax da nga ñu ci ñëwal waye dafa wër monde entier la def lamp nak nan la def ba dugg waaw kan moko produire ak nan la def ba ba lolu mu téye ko ci loxom ba lim ci bëgg yëpp am ba monde bi yëpp daanaka ci lolu nga siwé la mëna wax ndax aduna yëpp ci kaset bobu lañ la xamé xamoon nan la mais fofu la la ñëpp xamé mais lolu nan la diggé ci yow nan la kaset bobu diggé ci yow ak ban ané la. ma samba man afa may am kaset la siiw. Mhm. afa may am kaset la ma Sénégal xam. Mhm. ndax ruq bu dul ruq jinne fii si ndakaaru cant naa fa. 95 mm-hmm. bu ma jógee Sikoor yi ñëw ndakaaru mm-hmm. dama doon wër di cant rek. Mm-hmm. gars yi di ma woo fu ne may cant. may am ay fans. ay fans mag. am ay fans yoo xam ne. dañuy bëggee làmp mais mënuñoo dem ci cant gi. am yoo xam ne dañuy bëggee làmp mais ñemewuñu bàyyi faal yi. man loolu moo ma inspiré. ma ne xaaral ma génne kaset. kaset boobu maa ngi ko génne kaset boobu bi ma koy génnee damaa dem ci borom daaru rakk Cheikh Modou Kara Mbacke Noreyni maam Thierno moom mooy sunu jëwriñ ci kër sëñ bi bi ma ñëwee ni ko Mbacke man de damaa bëgg a génnee kaset sëñ bi def ni ma waaw lu baax de moom boo koy def moom jarul tàggoo ba ma sëñ bi joxe ndigal ci laa sol sama dàll di wër producteurs yi ci Sénégal jamono boobu su ma juumul Talla Diagne moo fi nekkoon comme producteur Talla Diagne ba ma fa demee ni ko damay génne kaset daf maa reetaan. waaw daf ni ma yow ban xeetu kaset ngay génne ma ne ko man de si kar laay def. Mhm. moom dafa ree. Mhm. li tax mu reetaan ma mooy daa mus a gis loolu. ay xiinu Baay Faal ak sikkur laa ñu koy jaay si marché bi. <laughs> loolu mus koo gis. Uh-huh. ba pare it. Uh-huh. loolu da leen a yéemoon daal. maanaam nan lañ koy jaayee parce que mosuñu koo jaay ñoom ay mbalax lañu doon jaay ak yooyu. Uh-huh. Uh-huh. man xamoon naa ni kaset bi di def. Hmm. bu génnee mais ñoom xamuñu woon loolu. léegi nag Talla Diagne di ma jox ay RB may dem ak ñëw di dem ak ñëw ba yàgg. Uh-huh. ma bàyyi Talla Diagne. Uh-huh. dem fii ci Marte Sam ci Pape Dioum London Music. London Music moom tamit ba mu ñëwee expliqué ko ko problème bi dafa reetaan. ni ma làmp kasetu Baye Fall fan lay jaree. fan lañ koy jaaye <laughs> mais boobu dañoo umpale xam nga xam nga Omar Pène nee na ku xamul xamoo. Uh-huh, loolu olof a ko wax. Uh-huh. ma ne ko grand kaset bi te koo génne. waaw ne ma kaset bi bu ko génnee na fan lañ koy jaayee mën ne koy yow génneel rek essayé rek. parce que daa nekkoon lu bees tàq ci nopp sénégalais yi. Uh-huh. ci nopp àdduna bi yëpp ay xiinu Baay Faal. ak Sikurulaa. su ma juumul guru groupe moo ko fi mës a def te loolu yàgg na muy waa waa waa waa groupe bëgg bëgg waaw ngi nekk Medina uh-huh. wa bëgg fàllu waaw waaw ñoom ñoo ne kuy morit bamba bamba cung yeeg yooyu yëpp di daw uh-huh. ñooñu ñoo ko fi mos a def te ah, ñooñu sax sikaruñu dañ doon kebetu ah, waaw ñooñu sax dañ doon dañ doon kebetu mais uh-huh. après def bàyyi xel affaire boobu. ba mu ko bàyyi xel nag. Mhm. maa moom ñu liggéey ci. waaw ba ma génnee kaset bi. Mhm. Taala Jaañ la ko jox. comme Taala Jaañ moo nekk ci digg sàddal ga mhm. moom moo doon jaay CD boobu. bi kaset bi génnee. kaset bi amul publicité. kenn jaaralu ko si benn média. parce que ñoom yaakaaroon nañu sax kaset bi du jar maanaam foogee wuñ ko woon daal mais man mi borom kaset bi xam naa li kaset bi di def après. Baye Fall ci bopp fekk si Kanté moom. Mhm. di ko wax naka su dul noonu naan ko génneel kase bi. fekk boobu kase bi jeex na parce que boobu ku nekk amoon na yéene am ci kase ah, bi waaw dëgg la léegi la temps que ñuy dem di génne génnewaat yeneen exemplaire fekk pirate bi dal na seen kaw uh-huh, uh-huh. jamono yooyu kaset jamonoy kaset la woon boobu ay CD gi yëpp waaw kaset carré moo fi amoon loolu 2002 la kaset uh-huh. bi génn yëngal àdduna bi toj àdduna bi mais man tamit ba may def kaset bi defuma ko woon pour ay xaalis. wala ay dem Europe ak yoy wala ay dawal auto mhm. serigne touba liggéeyal ko romb na yooyu ay dawal auto ak ay tabaxi étage serigne touba ay mayam fawxe lolo man samay ñaan serigne touba duma ko ñaan ay étage wala auto mhm. leneen lay ñaan mhm. mais du lolo loolu nag mi ngi ci biir liggéeyu sëñ Tuubaa bi boo ko tegee si yoon rek bu soobee sëñ Tuubaa mhm. waaw lépp na la fekk si ndax sëñ Tuubaa moo am fay mhm. Mhm. yaa ngi dégg kaset ba génn yëngal àdduna bi piraat yi dal ci kaw sa waay sa waay dem na ba benn instant woo ma naan ma waa sa waaye nu ñuy def ah borom rajo yi yor seen rajo yi di xelli rek ma ne ko ah waxoon naa la ko de ah, ah, ah. ne naa la nga génne dix mille dix mille exemplaires mu ma fan laa koy jaaye yaa ngi dégg uh-huh. mu génnewaat yeneen trois mille uh-huh. trois mille yooyu ba mu ko génnewaatee kaset uh-huh. bi fanaanul mu dem génnewaat yeneen trois mille fekk ñu ni gannaaw suba la màggal Touba zéro man mii dama dal ci kawam parce que dama ni ko man sama waa koñ amaguñu si kaset bi mu ne ma ah seen waa de bu ñu amul kaset moom dinañ ko utee feneen parce que man li ma yoon ni Touba laa koy jaayee ji yaa ngi dégg kaset boobu daal. Mhm. defoon lu doy waar si àdduna bi. man xamoon naa li kaset bi def man kaset bi ba ma koy def ay xaalis yooyu tax moo jóg mais dama ko def pour pour gars yi respecté. Baay Faal yi waaw xam ne maanaam. Mhm. boobu sikar kas sax bëriwul. Mhm. boobu fii ba parcellement maa fi daan wër di cant. yaa ngi dégg. mais dama ko defoon pour juste rek. ñu respecté les Baay Faal. parce que Baye Fall yi bu ñu njëkkoon. boo amee sa doom ba ko tiital sax danga naan Baye Fall baa ngi ñëw mu daw. mais xeetu Baye Fall boobu amatul léegi. léegi sëñ bi daa changé affaire yi. Uh-huh. ba kase léegi yooyu génnee la lépp changé. ndax sëñ Tuubaa moo mel noonu. sëñ Tuubaa amul tànki ginaaw tànki kanam la am. waaye lamp léegi duñ la dagg kaset boobu dafa am euh, daaj daaj yu bari yuñ ci frappé ci kaset boobu. rawatina nag muy euh, daaju maam jaaro boobu boobu dafay jëngal àdduna bi nga xam ne yow foofu romb ci monde entier bi moom ngay dégg internet yi ñëpp moom lañu ñëpp moom ngay déglu bëggoon nañ nag nga indi taa indilaatuñu ko léegi ngir mbokki taalib yi nga xam ne ak xale yi nga xam ni léegi lañ judd yàggul te loolu fekku leen fi ñu xam ne lii làmp moom moo ko defoon mooy daaju maam jaara loolu ñu bëgg nga daal ko maam jaara buso gàcce nga laama sant la ñun rijaalu lay karema maam jaara buso gàcce nga laama sant la ñun rijaalu lay karema maam jaara buso gàcce nga laama la ñun rijaalu lay mam jaara buso gàcce ngalama sant nan la ñun rijaalu lay kaare maam gàcce ngalama Allah ilaha illallah la ilaha illallah illallah, la ilaha e, e, illallah. E, Alaaji Fallu ma gomba seero Alaaji Fallu ma gomba seero te balta may ma yaay doomi Bamba waaw illa laay faal laa ilaaha illa faal sëgg cim ndox si geesuuf laa ilaaha illa laay faa laa ma samba yàlla na ngay maam laa ilaaha illa laay faa ilaha illallah fa la ilaha illallah fa agassa sa mu ni wa liñ doon wax mom yaakar na tungu ne du tew ñu notal kon mbokki julit yi mbokki taalibe yi mbokki soppe yi lamp yi lamp job xamna tay mom di ngeen wax ni tay indil lañ leen lu doy war ndax demb lañ leen indil limu daaj am na ñoo xam koy daaj barke borom tubaa muy lu frappé adduna bi moo tax tey ma ne woon dinaa def le tout ngir waxloo ko ko mu wax te bi mu ko waxee it ndeysaan gis nga ñi taxaw daanaka ñu ngi ko yëg bu baax barke borom tubaa kon nag làmp dañuy ñëwaat ci beneen tolluwaay dañuy ñëwaat dañoo bëgg tamit xam làmp ci jamono yi lan la ne ci lan la làmp nekk ak tolluwaayam fan la nekk ci sikar si jamono yi fan. waaw xam nga ma Samba. li ma la waxoon sànq laa lay waxaat man sikar si mhm. ba ba may dugg ci biir suuf duma ci jóg ndax tey lu ma am ci àdduna mbaa fu ma dem ci àdduna mbaa ku ma xam ci àdduna sikar see tax sikar see maa ngi ci duma ci jóg dafa fekk ne nag man xëccoowu ma dara tey ñoddiwu ma dara man li ma ci gënoon yitteel ci sikar si mooy ni mu demee tey kaset yaa ngi génnee fu ne man loolu laa ci jublu woon ndeysaan te it dañ ne bul lëg lekk alam na ko gërëme coy mais ñun danga bokk ci ñun nga xam ne duñu la fàtte ndax dañoo dundandoo lu bari mu yàgg trop moo taxit xam nañ sa talent xam sa tolluwaay ci sikar si dama koy wax gaa yi dama leen ni benn sikarkat nga ngay fëgg réveillé ko def ko nii rek mu jeew rek sikar si lal bi mooy làmp day yeew rek sikar du xaar du xalaat day yeew rek sikaral la te loolu ndaanaan moo koy def waaye it bëgg nañoo xam sa diggante comme li nga wax sànq grand théâtre lu tax lamp grand théâtre lu tax Sorano parce que waxatuma ay waxi concert lamp fi mu ne na ay taxaw ci concert mbokki taalibe yi nag ñoo koy bëgg ngir yow doo sañ a bañ ndax moomoo sa bopp waaye day am loo xam ni sa objectif lay doon muy bit bu nekk ci yow mooy Sorano moom la gars yi laaj mooy question bi adduna bi yëpp man loolu lañ may posé lu tax lamp Sorano lu tax lamp grand théâtre ndax ñi koy posé danu la xam bu baax a baax a baax moo tax ñuy laaj loolu kon lool luñ ci mën a leeral askan ni nga mën leen a libéré. waa xam nga Massamba àdduna bi <laughs> yàlla andiwuñu fi pour yàkkamti <laughs> wala ñuy pressé <laughs> Cyrano ak ay grand théâtre rek yooyu yëpp dinañ fa dem nii rek ngir ngir gaa yaa fay dem di ko def mhm. il faut ñu dem fa def ko comme ni ko gaa yi di defee ba ñëpp xam ni mën nañ ko mais boo xoolee ay boo xoolee ay théâtre ay grand sérat ay grand théâtre ak yooyu sax taxuñoo jóg mhm. ndax Cheikh Modou Kara Mbacké Noreyni dafa am lu mu wax mhm. dafa ni Bamba fépp Bamba partout mission bi du Sénégal kese xam nga gars yi ñoom grand théâtre la ñuy wax danañ fa dem nag def ko pour bégal fans yeeg yooyu mais taxuñoo jóg Brasil. waaw ñun ba sikar wax dëgg yàlla ay grand théâtre ak yooyu taxuñu woon jóg dëgg la parce que dañ ko daan def ci ay mbedd di sikar mhm. di cante gars yi di jóge fu ne di ñëw waaw mais xam nga léegi xam nga gars yi dañuy wax ni euh, dafa am loo xam ni jamono la tolleel sànq wax nga say biir wax jamono moo toll foofu lii moo taxoon nga koy liggéey soo demee bëgg say rakk say jarbaat ñoom ñu nekk ci loolu di ko dundal te yow nga am say soppe moomoo sa bopp yow dina bokk ci ñoom say soppe ak say fans ne lamp yóbbu nañu grand théâtre wala lamp yóbbu nañu Sorano waaw ci temps boobu la mbokk taalibe yi di waxe tamit dëgg waaw non mbokk taalibe yi ñoom lépp lu wax dëgg la. xam nga Samba. Mm-hmm. Grand Théâtre ak Sorano. Mm-hmm. ba ci kaso bi. la état. Mm-hmm. maanaam ñi ñuy woowee état ñoom si seen biir ñuy xëccoo pétrole bi. te pétrole boobu feeñagul. Cheikh Modou Kara ni mu ñu waxee yooyu. noonu la ñu waxee woon ay grand théâtre rek. ba mu koy wax grand théâtre sax amagul. Sorano moo fi amoon. sëñ bi moo ne fu ñu mos a dem. Uh-huh. def fa saayir. Uh-huh. dinañ fa dem sant fa Serigne Touba. ci jamonoy Abdou Diouf la seex moo du Karani. Uh-huh. kaso yi dinañ ko def ay daara waaye bu waat yi dinañ ko def ay santukaayu Serigne Touba. waaw kon. kon bu dul tey di suba rek Lamp Diop moom faa mu woote grand théâtre loolu moom. <laughs> kuy nelaw. kuy nelaw mbaa yaa xam nelaw wa bu ñu la ko waxee sax ak ñu bañ la ko waxit war nga ko mën a gëm waaye dafa fekk ne yàkkamti moo baaxul wax nga dëgg yàkkamti moo baaxul lamp lu wér la wax yàkkamti baaxul lamp léegi na dafa ñaari question rek yu des pour ñu tëj émission bi ndax bala ñu ko tëj il faut nga am tamit loo ñu ko tëjalee ci benn temps bu baax sax ak li xew loolu la ñu bëgg nga tëjal ñu ko fa waaye dama bëgg laaj lamp si kar si xew léegi ak tout tànk yi yi ngay dajal ci biir baas yi cant yi sa digganteeg ñoom sikarkat yi sa digganteeg ñoom mu nekk pàcc bu gàtt rek nga tënkal ma ko ma laajaat la beneen laaj bi. waaw tout tànk yi moom wax dëgg yàlla waaw tout tànk li ma leen di conseil mooy uh-huh. benn am yar uh-huh. parce que sikar boo koy def da ngaa war a yaru uh-huh. sikar ak ak musique bokkuñu boo koy def da ngaa war a yaru set sell ndax baat bi ngay wax la Masamba des fois ñuy sikar ba yàgg ñu ne eh leen jàkka jaa ngi nodd mm-hmm. man loolu sax pour man mm-hmm. dama koo dingat xamalu mm-hmm. tax jàkka ji kii nodd lu muy wax laa ilaha illallah muhammadu rasulullah jàkka ji nodd loolu lay wax laa ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam waaye ñun ñuy sikarit laa ilaha illallah muhammadu rasulullah la ñuy wax mais ci ñu xamul. dañ naan Baay Faal yi nañ arrêté ndax jàkka jaa ngi noddu. dinañ leen ko nangul sax ndax li tax ñu koy nangu mooy seen umpule ak ak warma ba waaye jàkk ji li ñuy def loolu la Baay Faal yi di def. dëgg la. moo tax man xale yi dama leen di conseillé. parce que ñun tamit wax dëgg yàlla loolu lañ doon ñaan yàlla ko def benn mbir àdduna yëpp di ko copier. mais dafa wuute ba tey bokkuñu. parce que Baay Faal Baay Faal dafa bëri façon. Baay Faal bi def daara. ak Baye bi yeewoo seen kër ñaar ñooñu du ñu mës a bokk. loolu moo feeñ ci sikar si tey. da ngay gis koo xam ne day watu dégaraateem. Uh-huh. ñëw taxaw yor micro di sikar. Uh-huh. waaw ak wàccee tuba yi. maanaam àdduna mooy dox. Uh-huh. mais àdduna lu mu dox doxit. du tee cosaan. la fi maam Serafal bawoon ba tey mi ngi fi. jógu fi. ma ciy profitoo nag ma sàmba xamul tax may profitoo. Sénégal gi. Mhm. Baay Faal gi ñuy fowee man làmp daf maa naqari. surtout ndax li tax mu naqari moom mooy da gis mbalax maan yeeg. Mhm. ku jóg takk say kurus. sol rango say njañ di kënjëng kënjëng gi si télé bi. Mhm. te maam Serafal dafa am maam Serafal. kooku kenn mus koo yab. maam Serap Fall kenn mosu koo yëpp. Mhm. te maam Serap Fall trisewul. Mhm. yoonam bii dafa am fu mu ko tegoon. dëgg kon képp koo xam ne nga ñëw fekk si ñu si tamit. Mhm. foofu ko maam Serap Fall tegoon da nga faa a tegu. di nga kenn. mais li ma gis léegi daal. Ah, ma neex neexuma daal rafetlu ma ko ba si internet bi. da ngay gis góor. góor roosa ay tuñam ba takk ndombaam. yaa ngi dégg. Mm-hmm. wala mu sol ay njaxasam taxaw ni Baye Fall laa. mais Baye Fall gi di fawukaay. dëgg la Baye gi dëgg la yow mi may wax sax xam nga lool. yow mi tey Massamba def nga daara. dëgg am nga foo jaar ci yoonu Baye Fall. dëgg la ba tey nga ñëw di def sa émission li lépp ci yoon bi la. parce que ci yaatal œuvre bi la bokk. dëgg la yaa ngi dégg mhm. moo tax gars faaw ñu bàyyiwaat xel uh-huh. ba pare dem tarbiya ji mhm, Baay Faal da ngay tarbiya mhm. maanaam nga ni Baay Faal laa te doo Baay Faal mi ngi mel ni jàngoo ba pare bëgg bak bëgg tari waaw xam nga boo ba pare bëgg am bak fon ngay jëlee bak Baay Faal laa te doo Baay Faal mi ngi mel ne tey nga ni soldaar laa te jaaroo bàngoo yow li nga bëgg wax làmp mooy li Cheikh Fall waxoon nii yoon wi lu ma ci def ci la lu ma ci deful du ci. loolu nga bëgg a wax. waaw kay kon daal loolu leer na nañ Lamp wax na ci mbokki taalibe yi wax na dongo yi wax na ak yi kon wax na tamit jaar jaaram wax na lépp loo xam ne dund na ko ci yoon wi wax na digganteem xam nga ak ñëpp rek mbokki taalibe yeeg sëriñ beeg njabootu sëñ bi Lamp wax na ak ñoom. ba tey émission bi ñu ngi ci doon ànd ak seen ah, mbokku taalibe Massamba Thiam moo ñëwoon fii Géejawaay doon ko def ak seen sikarkat muy Lamp Diop Kara ànd kook waa TMP muy Top Events waa Lamp li ma bëggoon xam mooy ah, waa TMP Top Events ñi nga xam ni ñoom ñoo créé lii ngir mbokku taalibe yi ak sikarkat yi ban baat nga leen di wax ci une minute. waaw baat bi ma leen wax mooy ñu góorgóorlu rek waxoon naa ko Matar Mbaye mm-hmm. yii nii yëpp sëñ Abdoulaye Mbacke waxoon na ko. ba mu fi waxee benn waxam ci rajo Sénégal ñu ne ñu naan dinañ ko teg ak duñ ko teg sëñ Abdoulaye daa tàng jër. te ñoom bu ñu tàngee lu ñu wax yàlla def ko. sëñ Abdoulaye moo ne woon jamono ngi ñëw murid yi fu leen neex la ñuy waxee. mooy lii di daw tey. moo waral émission yi tey Baye Fall yi di ko def. maam lu mu ci wax lenn loolu di leen soññ. di leen wax ni tamit ngeen góorgóorlu te xam ne tamit œuvre bi. tàmbaleeguñu sax. waaw dañuy commencé nii rek mais tàmbaleeguñu. ak sa lam sa sa kàddu yu mujj ci émission bi sa kàddu yu mujj sa waaw nga sant mbokk taalibe yi émission yi ak waaw ñu ngay sant rek ñu tënk ko. waaw kàddu yu mujj yi Massamba mooy. Mhm. di la sant rek. Mhm. waaw yow moom da sama xarit dañoo yàgg. yow émission boole wuñu yow maag yow ca Mbaye Fall gu njëkk gara du tey. waaw maanaam di la sant di sant mbokk taalibe yi nga àndal ci émission bi. Mm-hmm. di sant képp ku seetaan émission bi. Mm-hmm. di sant waa Géejawaay gi ma dëkk. Mm-hmm. di sant waa Sénégal maa ngi sant képp daal kuy seetaan émission bi. di ñaan nag Serigne Mountakha Mbacké yàgg fi lool. ba li mu bëgg a Serigne Touba yàlla yàggal ko fi mu mën koo liggéey. ñu ngi sant ñëpp. waaw wasalaam. waaw wasalaam lamp nee na wasalaam waaye lamp léegi da ngay teg nag benn eeru madda wala loo bëgg a wax rek nga wax ko ñu tëjee ko émission bi émission bi jeex na ñu ndar képp ko noonu kon mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di bëggee di leen siyaar di leen wax ne émission bi fii lañ koy ñaane seen xarit seen mbokku taalibe Massamba Thiam moo ñëwoon Géejawaay fii don def émission jëf jël émission jëf jël nag waxoon nañ leen ko nu nekk lay ñëwee nu nekk ci pàcc bu nekk lay ñëwee ñu ànd seeg waa top model events ci ñëpp lay génnee kon nag na ko ñëpp di bàyyi xel bu baax a baax a a baax a baax ñoo sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant euh, Moustapha Diarra ak Mourid mu àndal muy sëñ Fallou ñoom nga xam ne ñoo yoroon bagage yi di ko yeesal nii ñëpp mën ko xool ci jaww ji ñu ngi képp ku nekk top top model events ñu ngi lay jaajëf muy TMP kon nag da leen ko suivre ko bàyyi xel bu baax a baax ak seen émission jëf jël lamp jërëjëf lamp jërëjëf suñu xool seet na bu baax ci yow yalla na la bi dole defal jàmm sa carrière li nga ci bëgg yalla na la ko serigne bi defal kon légui dañuy bayyi lamp rek mu tej émission bi ak daaj ben daaj rek waaw bismillah la ilaha illa laifal la ilaha illa la ya ramfal La ilaha illallah La ilaha illallah ifal La ilaha illallah ya La ilaha illallah La ilaha La ilaha illallah ya La ilaha illallah kuy sàkku taalibe gis ngeen na mi doxe ak na mi waxe looloy taalibe

ak na muy waxe loolay taalibe jërëjëf borom Tuuba